ma ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf non dans l'affaire de Ndiaga Diouf ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf dañ ma jugé première instance man leen da nga ne ma jaay doole damay appel ñu ne ma baxte bu appel parce que gaañee ñoom bëgguñu appel na nga ko yemale fii man leen su ngeen ma condamné woon benn fan ak ma fay dërëm laa wax dërëm dërëmu euh, à l'amende damay appel ma dem appel gars yi jaay ma doole waaw ku la jaay doole première instance jaay la doole appel mais dina la jaay doole cassation xam naa président Macky Sall sax xam naa dafa xaw a jaaxle ko parce que xam naa il doit se poser la question lu tax Barth waxul ci waxul dossier Ndiaga Diouf parce que kippeewuma ko dunduma ko man xam naa defuma dara maintenant nag dinañ ma condamné loolu ñëpp xam nañ ko man xam naa dinañ ma condamné les conséquence dinaa perte suma mandat député xam naa ko wante man assemblée bu nga xam ne nii man xam naa ni que fii ak at dañ koy tas man nga dàq ba ci assemblée bi ak ñàkk ma dàq ci assemblée bi man loolu loolu yëngalu ma wante fii mairie Dakar dama bëgg dalal seen xel parce que wolof Njaay nee saay-saay waxul dëgg wante mi ngi jéem a yàq xel xalaat xol ak yéene wax leen ak bépp avocat je vous invite à aller consulter maître Demba Ciré Bathily et maître au besoin Cheikh Koureyssi Ba je resterai maire de Dakar et ce n'est pas un souhait que je dis Ce n'est pas une opinion, c'est le code de procédure pénale. Je ne serai pas déchu de mon mandat de maire. Ils vous donneront les éléments d'appréciation.